الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه يمشي تيربي لشذا العرف في فن الصرف نمي تولون تي تجيني جمو تكسير نمي تولون تولون تي الحادي ولا سورة نعرف كوك بين البي مي فعالي بفتحتين شنياري فتحة وكسر اللام أكسر اللام وتسجيل الياء أكشد ياغا faaliyun waaye taridu dana xiyaasu fi kulli sulaasiyin ci bépp sulaasi saakinul ayni bu sukkoon digg bépp sulaasi boo xam ne digg ba dafa sukkoon ji dañu fi axiri mu mujjëm ga yaa un mushaddada yaa guñ shadda te yaa googu lay sa nekkut mutajaddidatan yaa gu bees li nasabi ngir askan su fekkee du yaawu nisba yaawu nisba kenn du ko tëgg faaliyun bépp sulaasi boo xam ne digg ba dafa sukkoon ñu mujj ga am yaaguñ shadda te nes ba taxut koo jug fa tegu ko faaliyun ke kursiyun gi firi sees nga ne ko karaasiyun buxtiyun gëlëm gëlëm ak buxt nga ne baxaatiyun xumriyun xeetu pitax la nga ne xamaariyun xumriyun bi dam bi dañ koy dam yëpp seen yaagi du pour nisba aw li nisab nisabin nasabin wala ngir askan boo xam ne tunu siya dañ koo fàtte fàttelu ka mahrijun ñu askanoo ko ci mahra ab xabila la waaye jëfeetuñ ko pour askan taqul danga wax fii jamia ci jamoo bi mahariyun ba tey mahariyun parce que cosaan li nisba la moom moo taxoon ñu indi yaaga waaye dañoo dem ba jëfeetuñ ko pour nisba lépp lu askanoo foofu dañuy wax ko loolu wal firaaqu lay teqale mooy ann yaawu nisab ne yaawu askan yaduru day tegtal al lafzu baat bi baada xasbiha gannaaw boo ko xasabee maanan ci maana bi xilaafi yaa i naxu kursiyin wuteg yaawag lu mel ni kursiyun is ngir yaxtallu dana al lafzu baat bi baada suquuti yi gannaaw bu mu rotee yakun du nekk loo ñeel maanan benn maana yaawu nisba soo ko daggee baat ba dana fa des kitaabiyun boo daggee yaaga mu kitaabun téere amaa yaag lu mel ni kursiyun buxtiyun xumriyun ak mahriyun boo daggee yàgg maanaam dafa yàqu kursiyun daggal yàgg du amati dara kursu du dara dégg nga moo tax yaayu mel noonu nga xam ni boo daggee baat ba is yaxtalu day xëtt alaf zu baat bu baax suquut yi gannaawum wala yakun du nekk loo ñor ko maanaam di maana yaayu mel noonu moom la ñuy faaliyun sulaasi la ba dafa sukkoon yokk nañ ci yaaguñ shadda te nisba taxu ko jóg faaliyun lañ ko tëgg wa shashta jaar dina di jamu xubutiyun wala xibtiyun xeetu yére la yu weex yu sew ñu di ko liggéeyee ci misra askane ko waa xibt waa xibtu ñooy nasara misra misri li ànd na yaawu ndax yaagal li nasab bi pour askan la yaawu nasab la pour askan la xubutiyun mooy yére yu ñu askane waa xibt cem mooy nasaraanu misra yi ñoo ko xabaatiyun te yaagi yaaw nisba loolu dafa jàdd xiyaas wa yaxfasu danañ ko wëtt fi insaanin si doomu aadama bu waxee danañ ko wëtt nag mooy fekk ne arab yi di ko waxee noonu ñu di ko waxee noonu insaan is ngir xasuma dégg nañ ci anasiyun muy faaliyun waaye loolu maxfuus la dañ koo dégg noonu rek arab yi di ko waxee noonu wa zaribaan xeetu janax la bi fatin ci fata fa kasin topp kasara moom it dégg nañ ci zarabiyun loolu xam ngeen ne nekkul sulaas yi goo xam ne digg ba dafa sukkoon yaa nekk ci goo xam ni yaa guñ saddara te runis ba moom jéego yaa sax mu ci far mu tëgg leen faan li yun loolu luñ dégg noonu rek walay saa nekkuñ ñoom ñaar jamaan di jamono li insiyun ñeel insiyun gi ko jug nit wa amaana nit mën naa ko mën naa critique ne déedéet anasiyun ak zarabiyun mën naa nekk jëmu insiyun ak zirbiyun te loolu sulaasi la boo xam ne fu sukkoon yaa nekk ca mu ne déedéet bal asluhuma seen cosaan mooy insiyun ak zirbiyun seen cosaan mooy anasiinu ak zarabiyinu su ko defee nun goo lañ soppi ñaari yaa dajee ñu jël benn bi sa dugg si benn bi moo tax mu ne xuli bat saase nañ nun gi fii maa si ñoom ñaari yaa an yaa woo di ximat ñu idgaam al yaa u yaa gi fii yaa yi ci beneen yaa loolu moo andi anasiyun ak zarabiyun jamo bu nekk eh, eh, nga mm, loolu moo ak zarabiyun waaye anasiyun ak zarabiyun seen jamo eh, anasinu la woon ak zarabiyun kon du jamo insiyun ak zirbiyun jamo insaan la mi anasinu zariban jamo zarabinu la waroon doon mais nun gi dañ change def ko yaa jël benn yaa gi saddu ko ci benn yaa gi lu mën a anasiyun ak zarabiyun hmm, kon ne ko jamo insiyun ak zirbiyun ñaari jamo yooyu wax seen cosaan wa sumea dégg nañ ko fi azra ci azra ñu ne azariyun wa saxra ak saxra taqul dama fi ma su ñoom ñaar azariyun ak saxariyun بغل دغلن كتي جهم بيو عيلو المحفوظ لبتي عزراء وأكسحراء ونك أمون أي جمو يجال الثاني ورسول الله نعرف كل بين ربما يفعالل ويترد دنا قياس في الرباعي مجرد في رباعي مجرد ومزيد ومزيد فعالل رنيو في رباعي مجرد أقرباعي مزيد بنك دارين كليرال وكذا في الخماسي مجرد في خماسي مجرد ومزيد ومزيد فعالل rubaa yi mujarrad danañ ko tëgg noonu rubaa yi mazid danañ ko tëgg loolu mujarrad nag mooy lu ñu yokku dara mazid mooy lu boo xam ne dafa am xarfu ci lu cosaan wa kazaalika fi xumaas yi mujarrad si xumaas yi mujarrad wa masidu ak masidum xumaas yi mujarrad danañ ko tëgg faali loon xumaas yi masid danañ ko tëgg faali loon fa taqul la nga wax fii jaafar jaafar lan la rubaa yi la mujarrad nga ne jaafirun wa bursun rubaa yi mujarrad la barasino zibri janfar moom tur la bursun mooy sell sell ndogmentu yi zibrit wurus la nga ne zabariju janfar jaafiru bursun barasino zibrit zabariju kooku faalilu lañ ko tëgg parce que rubaay mu jar la mu ñëw ci xumaas yi al mujarad balaa mu ñëw ci rubaay mazid ak xumaas yi mazid mu ne amal xumaas yi waaye xumaas yi felam yakun bu nekkul raabiu ñeenteeram ba yushbihu di niru zaayir aji yokk xaraf yokk yi mooy xarafu saaltumuuniha siin alif laam taa mim xaraf yooyu ma tudd daal saaltumuuniha fukki xaraf lañ fukki yooyu ma tënk ci baatu saaltumuuniha ñooy xarafu ndolla li ñooy xaraf yi ñuy dolli ci baat bi léegi nag xumaas yi ñeenteelu xaraf boobu bu fekkee niruwul ndollal même bu dee cosaan la mën naa niruk xarafi ndollal mu nekk siin wala taa wala nangam kon cosaan la waaye dafa niruk xarafi ndollal bu fekkee ne xumaas yi la boo xam ne mu jarat la waaye ñeenteel xaraf ba niruwul xarafu ndolal soo ko bëggee def jamu xusiba al xasab alxaamisu juróomeel ba ka safar jal xeetu garab la taqulu fii ju parce que ñeenteel xaraf ba jiin la jiim jiim bokkul ci xarafi sa altumuniha bu doon laam bi sax la ñee laam xarafu ndolal la niru na xarafu ndolal diree ko fii cosaan la waaye safar jal jiim mooy ñeenteel xaraf ba kon xumaas yi mu la te ñeenti la xaraf ba nirul xaraf ndollal boo ko bëggee def jamu tëgg ko faalilu nga dagg mujj ga muy safaari ju taqulu fii da nga wax safaari ju wen ashbaa ne niru na azaayidu ndollal nag fi lafdi ci baat awil maxraj wala génnuwaay benn muy xumaas yi boo xam ne mu jaral la yokkuñ ci dara waaye ñeenteelu xaraf ba dafa niru xarfu ndollal maanaam baat bi dafa niroog benn baat ci xarafu ndoole yi muy siin wala taa wala miim wala nuun wala ba mu jeex ci xaraf ci xarafi saaltumuuniha wala nirul ko ci baat sax waaye ñoo bokk fu ñuy génnee parce que baat yi ci làmmiñ ci biir gémmiñ gi la ñuy génne maxaari yu xuroof yi boo ko xamee da nga xam baat bi ndax bokk naag benn xarfu ndoolal fu muy génnee wala déet su loolu amee su niroog xarfu ndoolal ci baat wala ñu niroo ci maxraj génn waay maanaam fu ñu koy tuddee fant yow bil xiyaar yaay tànn benn xas fii ci diggante xasaf xarafu ñeenteel boobu waxas bil xaamis ak xarafu juróomeelu kon rubaayi mu jarat boo ko bëggee def jamu bu la neexee saa su nekk xasafal xarfu juróomeel ba rek bu fekkee nag xarfu ñeenteel ba niruwut xarfu ndollal ci baat niruwut ko ci niñ leen di tuddee su boobaa xarfu juróomeel ba rek nga mën a génn nga mën a xasaf comme safar jël safaari ju parce que jiim niruwut xarfu ndollal ci dara su fekkee nag Eh, rubaay yi eh, xumaas yi mu jarat la xumaas yi laay wax ni su muy waxee jubaay ngeen baal ma su fekkee xumaas yi mu jarat xarfu ñeenteel ba dafa niru xarfu ndollal ci baat wala ci génn maanaam nu ñu leen tuddee bu la neexee nga xasaf xarfu ñeenteel boobu wala nga xasaf xarfu juróomeel ba kon xasaf juróomi xasaf xarfu juróomeel dana dagan mutlaqan fa taqul la nga wax xadaar naq li yëpp bul fàtt nag si xumaas yi mu jarat la boo xam ne amul ndollal bi wax ni safar jal ismu ne ankabut turu jargoñ la xadar naq wal faddu lil xadar naq yi dafa mel ni seen fara ani na ko tuuru la moo ka aaroon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko naafiq ak faras daq tuuru waykat la bu siw cosaan la léegi xadar naq nuun googu xarfu cosaan la gaa waaye dafa niru xarfu ndoolal parce que xarfu ndoolal yi nuun si la bokk sa al tumuniha kon niru naar fu ndoolal ci baat boo ko def ci moom nga wax xadaariqu nga asaf nun ga wala nga ne xadaarinu asaf xaaf ga parce que dafa niru naar fu ndoolal ci baat ñaar bu la neex nga def faras daq saaltu ne xool leen ndax da ngeen si gis daal ngeen ne déedéet kon niruwul xarfu ndolal ci baat mais da xool daal fan lay génnee ñu ne ci cet làmmeñ taa fan lay génnee si cet làmmañ kon niru na taa ci génn waay ñoo bokk fu ñu leen di tuddee si cet kon niru na xarfu ndollal ci maxraj ci génn waay su boobaa bu la neexee nga asaf daal gi nga ne faraziqu bu la neexee nga asaf xaaf ga ne farazidu def ko jam bi ñu seetlu bu baax yaakaar naa ngeen xam ne ma bëgg wax is ngir an nuunu gi fi awali ci bu njëkk min xurufi ziyaadi muy bokk ci xarfu ndollal wa daalu daal gi fi saani si ñaareel gi tush bi mu dafay niru atta atta fil maxraj ci génn waay waaye yii ma la wax yëpp nag amul benn bu ci am xarfu ndollal mais dafa niroog xarfu ndollal ci baat daal dafa niroog xarfu ndollal ci génn waay fu ñuy génne mooy ci cat làmmiñ kon wax na la rubaa yi mujarrad niñ koy tëggee ak xumaas yi nan koy tëggee mais xumaas yi moom il faut xasaf xam fa bu loolu du maa nekk faalilu wa taqul da nga wax nag fii mazid rubaay ci mazid rubaay mazid rubaay boo ko bëggee def faalilu nooy def da ngay dindi xarfu ndoolal ga xam nga boo ko defee rubaay rek rubaay boo boo yokkee dara rek foo mu ëpp ñeenti xaraf te boo ko tëggee fa boo ko bëggee tëgg faalilu muy juróomi du mën a nekk kon foo nga dagg ga na xoo mu daxrijun aji béréngu boo ko bëggee def jamoo da ngay dindi miim nga wax daxaariju jubee ngu bi xas fi zaid nga xasaf xarfu ndoolal ko lu mooy nag la njëkk mujj ga nekk xarfu liin muy alif wala waaw wala yaa moo doon lay wane illaa isa ma kaan mooy mu nekk ma qabla axir la njëkk mujj ga liinan di xarfu liin falaa yu xasafu duñ ko xasaf xarfu liin muy alif wala waaw wala yaa su ma in kaana bu nekk alliinu xarfu liin ba yaa andi yaa saxa da nga koy bàyyi mu wér ka xindiil rubaay la masjid waaye da ngay def xanaa diil bàyyi ko noonu amul benn changement wayn kaana bu nekkee alifan di alif bu dee xarfu ndollal alif la nag aw waawan wala waaw xuli ba ñu changé alif gi ak waaw gi yaa an muy yaa ndax wa sir daaj wayi moom a naqatu shadidatu mooy gërëm gu dëgër ak usfuur mooy picc boo ko bëggee def jamu fa taqul da fii maa si ñoom ñaar xam nga faalilu la waroon doon mais nag mu la njëkk mujj alfu liin la te waaw la wala yaa def ko faalil muy saradiij asafir ay picc kon mazir rubaayi boo ko bëggee def faalilu da ngay dagg xarfu ndoolal ko lu may la njëkk mujj ga di alif wala waaw wala yaa bu alif wala waaw changé ko yàlla njëkk mujj ga bu dee yàlla nag bokk noonu nga tëgg ko faa liil boobaa foo nga soog yokk si yokk si yokk si yaa dégg nga su ko defee wa fi mazidul xumaas yi bu dee mazid xumaas yi nga bëgg ko def faa liil bi xasbil xaamis da ngay xasaf xarfu juróomeel ma zaid ànd ak ndollal ga xarfu ndollal ngay dagg ak xarfu juróomeel fa taqulu nga wax fi xibta buus bi kasril xaafi ci kasar xaaf gi li naqati shadidati muy firi gërëm gu dëgër xarfu ndollal gi mooy lan mooy waaw gi euh, juróomeelu mooy lan mooy sin bi kon boo ko tegee faali lu lay wax xaraatibu wabil fati boo ko fataa muy xartabuus di daahiyatu mu firi mbir mu jombale ba léegi da nga def ko xaraatibu da ngay dagg waaw gi euh, gi boo xaba sara di ga dégg nga raa la nga def ko xabaayisu muy faalilu dag garfu ndolool ga ak mujj ka faalilu ci yooyu lañ koy tëgg asaalisu wala ishruna ñaar fukk ak ñetteel ba te mooy bu mujj bi mooy shibu faalil lu niroog faalil maanaam boo xoolee moog faalil ñoo niroo ci maska ak ci liimu xarafi mais bokkuñ tëggin moom la ma ne woo ma maasal woo mooy lu dëppoog faalil adadan ci lim wa hayatan ak melokaan wayn xaalafu di la wute nañ jinatan ci peese wa zaalika loolu ka mafaa'ilu mafaa'ilu xam nga moom faalilu benn la leneen wute rek mooy faalilu moom xarifu cosaan yi moo fa nekk mafaa'ilu mim gi ndolal la gis nga loolu moo leen wute rek gis nga rubaay yi ba nga ko bëggee tëgg faalilu da ngaa dindi xarfu ndollal mu des ay xarfu cosaan muy daxaari fenn rek nga fa bàyyee xarfu ndollal te boobu gis nga ne da ngaa wax ne faalil nga ko tëgg ni nga yaaga pour wane yaagi ndollal la faalilu amma ma faailu nag mim gi xarfu xarfu zaid la waaye boo xoolee ñoo bokk tëggin ñoo bokk daanaka ma faailu ak faalilu benn tëggin la ñoo bokk façon ñoo bokk lépp ak fawaa'ilu xamal ne waaw gi alif gi ñooy ndolal gi ak fayaacilu yaa gi alif gi ñooy ndolal gi afaacilatun alif gi ak taagoogu ñooy ndolal gi wala afaacilu yooyu ñoo faalilu boo xoolee ñoo bokk même melokaan mais wutee nañ nag tëggin maanaam dañoo wutee ci dafa am xarfu yuñ ci dolli te bokku ci tëggin yooyu nag façon tëggin yu mel nii waaye tëral dana xiyaasu fii mazidu sulaasi ci mazid sulaasi xeyru ma taqaddama du lu jiitu min naawi ahmar ahmar xam nga lu xonq am nga ne sulaasi lañu yokk ci alif waaye boobu waxoon nañ jamo bi xomru la kon yooyu bokku ci ak sakaraan dégg nga loolu jàngoon nañ léegi sukaara atshan yooyu jàngoon nañ ko ak saayim jàngoon nañ ci suwam sulaasi la waaye alif gi doolal la raamin daa ngi woon ne fualatun la comme rumaat rumayatun la woon rumaat lay mujj wa baabu kubra kubar lay doon ak sakra faala dégg nga yooyu jàng nañ ko atsaan atsha itaas yooyu yooyu jàngoon nañ ko sakra waaye moom sakra moom sukara la maanaam baabu atsa lañu jàngoon atsaan atsa ñu war ko def itaas yooyu romboon nañ ko yooyu sulaasi la waaye sulaasi yi nga xam ne jàngoon nañ xiyaasam yooyu wax waxuñ ko fay na laa naka ñeel na leen jumu taksir jumu taksir yoo xam ne taqaddama jiitu nañu jàng ko waaye yi ñu jàngutoon seen e, xiyaas te ñu nekk sulaasi yi ñoo xarafu ci yokk façon tëgg nii lay doon wala yu xasaf duñu xasaf azaidu lañ ci yokk in kaana waaxidan bu dee benn la parce que rubaay la mën naa nekk faalilu mën naa nekk comme tëgginu faalilu waaye du du fa faalilu mën naa nekk comme façon faalilu waaye du yor kon te afdal ki gën xam nga afdal alif gi ndoolal la sulaas yi masida nga ko te bokk da ngeen jàngoon waxal afaadilu loolu afaa'ilu nga ko tëgg mook faalilu ñoo niroo ak masjid nga wax masaajidu mafaa'ilu nga ko tëgg ak jawhar nga wax jawaahiru ko fawaa'ilu nga ko tëgg waaw gi nga def gi ndolal la sayraf nga ne sayaarifu nag wurus la sayraf nag eh, mooy ñooñ ji tëgg affaire yi defar wurus yeg yooyu alaqa alaqin loolu jàngoon nañ ko mook fa mook fa alilu ñoo bokk même tëggin alaqin moom ci saan lool fa waaw lii yun rek lañ ko tëgg dañoo dagg dañoo dagg yàgg ba li fi nekk yu xasafu danañ xasaf ma zaada la yokku na ala yi ci moom maanaam bu fekkee sulaasi la mazid guñ yokk waaye lañ ci yokk ëpp na benn xaraf lañ ci yokk dañ ko xasaf sawaanu moo xam kaana nekk na waaxidan di benn maanaam benn xaraf la euh, ñaari xaraf la nga xam ni benn la ëpp bañ yokk benn xaraf kama fii naxwi muntariq nun gi ndoola la ak miim gi awis ne ni wala mu ëppee ko ñaar kama fii naxwi mustaxrij yokk nañ si miim ak siin ak taa kon xëppee na bu ñu yokk xaraf ñaari xaraf su boobaa foofu xasaf am ba mën koo tëgg faalilu lu ñu xasaf nag mu ne wuyu suru danañ gën a ne bil baqaay ci des maalahu la ñeel na ko masiyatu ndolal al aqar ci beneen maanaan moo xam ndolal gi ndolal ak maanaa la wala zone wala baat la kal miimi comme miim xam nga miim dafay tekk ne lii dañ koo tëgg ismu mafoon amma mun talex nun gi tekkiwul dara. kon muntaliq ñaari xaraf la booy xasaf benn ba ngay xasaf mooy nun nga ba fa miim gi ndax miim gi dafay tekk ismu faayil nga tëgg ko mafaayilu mu nekk mataaliqu gis nga di nga xasafee nun ko parce que nun gi am na maana am na lu muy tekk dafay tekk ismu mafuul dégg nga mustaxrij foofu ñaari xasaf ñaari xaraf nga mën a ngay la ko ëppee kon ñaari xaraf ngay xasaf ba mu des benn parce que benn xarafu ndool rek la mën am pour ñu tëgg ko faa lu mu mel ni faalilu ci façon di la wutee nañ tëggin nga ma taaliqu ma faalilu la mustaxriju loo war a asaf ñu ne gi boo miim gi boo ko asafee du baax kon lay asaf siin gi ak taagi parce que yooyu amuñ lenn lu ñuy tekk waaye miim gi mooy tekk ismu mafool wala ismu faalilu nga ne maxaariju maxaariju ngay wax foofu doo wax laa na taaliqu ak sa xaariju muy nafaayilu safaayilu loolu kenn du ko wax aw taxaariju tafaayilu loolu kenn du ko wax waaye mafaayilu moom bëri na tegin boobu bëri na parce que mim gi dafay am lu muy teg lu tax xasafoo mim nga ba fataaga ci mustaxriju wala siin nga lu tax xasafoo mim nga bàyyi fa nun nga ci mumtaliqun li fadlil mimi ngir ngëneelu mim gi bi tasadduriha ci nekk gi mu nekk ci commencement bu baat bi wa dalaaliha ak tegtal gi muy tegtal ala maanaam ci maanaam goo xam ne yaxtasu dana jegoo biir asmaa yi ci isim yi li annaha ndax miim googu tadul day tegtal ala ismu faayil ci ismu faayil wala mafuul ak ismu mafuul wa kal hamza ni ki hamza gi wala yaay ak yaa gi mutasaddaratayni ñëw xam nga loolu pare nañ ci mu ne hamza ak yaa mutasaddaratayni yi ñëw ci commencement baat fi naxwi alat dadi ak yalat dadi mooy li shadidil xusuuma mooy ku tatquloo dégg nga su ko defee alif gi ak yaa googu dañoo xaw a niroog alifu aquumu ak yaquumu alifu aquumu ak yaquumu am nañ maana ñoom dañ koo xaw a niru di la bokkuñ su ko defee booy xasaf duñ la may nga xasaf alif googu taaga ngay xasaf waaye alif gi doo ko di leen doolal la xam nga lëdër rek mooy cosaan li mooy ku bëri xulo li ànd na ndax alif gi ñaari alif yu alif goo ak yaa gi fii mawdi ay ñu ngi si barab yoo xam ne yaqaani dañ tàbbi fii ci moom daal lay di tegtal la maanaam ci maana ka aquumu ak yaquumu fa taqul da nga wax fii jami ma seen jamu alaa du alaa diidu la woon waaye da ngay sadd benn daal gi ci daal gi ak yalaa du kon am nañ maanaa parce que xaw na yoon niru aquumu ak yaquumu te ñaari araf yi am nañ maanaa moo nga bàyyi leen fi moo gën nga bàyyi fa taag gi nga xam ne amul benn aw lafzan wala baat fa dong maanaam léegi-léegi araf wa fa bàyyi arafu ndollal ga nga fa bàyyi dafa am maanaa ci lafzu maanaam dafa am njëriñ ci lafzu baat bi waaye amul njëriñ ci benn maana amu benn maana bu lu muy teg lu mu niroog lu tax ñëwee ko fa bàyyi waaye baat bi boo ko fa bàyyee tëggin bi dana niroog tëggin buñ nangu loolu rek mooy njëriñ li foofu boo bàyyee araf boobu tëggin bi dana niroog tëggin nangu boo fa dindee araf boobu nag da amee tëggin boo xam ni amul benn misaalam ci langue arab loolu waral da nga fay bàyyi xarafu mel noonu ka taayi comme taa fii naw istixraaj xam nga istixraaj amul mim foofu léegi boo ko bëggee def faalilu sulaasi masid la guñ yokk boo ko bëggee def faalilu ndax da nga dagg taa gi wala siin gi wala alif gi foo nga dagg ñaar ñu ne la taaga nga ne taxaariij taxaari da nga dagg alif gi ak siin gi ba fataaga nga ne taxaari taqul da nga wax fi jami ci jami taxaari bi yëpp xaayi taayi ci ba li an naa ndax moom laa tuxruju du génne alkalimatu baat ga an adami nazir ci ñàkk ndend boo waxee taxaari baat bi dana am ndend ba li fi nekk laxaa ñeel na ko naziru ndend ndax wa tabaarij ak tamasil tasawir dégg nga waaye soo fa soo daggoon taaga defal fa siin ba bi xilaafi siin wuuteeg siin gi law xultu boo waxoon saxaari ah dafay nekk sa faayil faayil moom amut amut ci arab laa wujuda am li faayil te boo defoon saxaari dafa nekk sa faayil siin gi nag loolu la moo tax ma tuddee ko noonu amma tafaayil moom am na moo tax nga ba fa taaga muy taxaari mu am lum niroog teggin bu bu ñu reconnaître bu mu niroog moo gën ngir laa wujur di am li faaxil ñeel faaxil wakkal waawi comme waaw gi fi naax wi xayzabuun xayzabuun li la xajuus màggat lay firi boo fa bàyyee waaw ga boo ko defee faalil da nga am tëggin buñ nangu muy faalil gis nga nu mu niru ko asafir biñ jàngoon boo daggee waaw benn tëggin da ngay day compliqué du am tëggin buñ nangu moo tax fenn ga yuux dana doylu anas fi xayriha ci asaf lu waaw woo yaa te mooy kon bàyyi foo waaw ga nga xasaf yaaga fa taqul nga wax fi jamii xazaabiin boo xasafee yaaga da nga ne xazaabiin mooy faaliil niroog xasaafiir bi xal bu waaw yi nga soppi waaw gi yaa an mu yaa kama fi usuur comme nu mu ñëwee ci usuur bi xilaafi maa law xasafta wuuteeg boo xasafoon waaw ga waaw xayta nga desal al yaayaa boo xasafoon waaw ndoolal gi desal fa yaaga wa qulta nga wax xayaa zibnu muy faalilu waaye rek bi sukkoon mu waxada bi sukkooni mu waxada da ngay sukkoon baaga xabla nuuni njëkk noonu nga xayaa zibnu fa inna xasfahaa foo nga sukkoon baaga fa inna xasfahaa ndax naka xasaf waa googu ba fa yaaga yuux nii dana doylu an xasfi xayriha ci xasaf lu dul moom maanaam fa inna xasfahaa naka xasaf waa googu laa yuux nii du doylu an xasfi xayriha ci xasaf lu dul moom xam nga xaysa mm, buun boo xasafee yaaga ba fa waaw ga soxlawaatu xasaf dara dangay am jamu jamu normal wax xasabi eh, xasabiin mu tolloog xasafiir faalil amma boo xasafee waaw ga nag bàyyi fa yaaga foofu nga xasafaat leneen parce que boo xasafee waaw ga danga naan xayaa zibnu xayaa zibnu ngay wax ma ne fa in xasfaha naka xasaf waaw googu laa yox nii du doy xanaa su fi xëyri xaa ci lu tax ndax bu amee xayaa zibnu is ngir laay li du méng alifu taksir alifu taksir alif goo xam ne jëmu taksir la du ci topp salaasun ñetti baat illaa awsatuna lu mooy na seen diggante saakinu aji sukkoon moxtal bu ràgg xayaa zibnu baaxut jamu boo xam ne alifu taksir la ñetti xaraf topp ca ñetti xaraf yooyu bu ci digg bi sukkoon la mën a doon te dafa war a ràgg te fii dafa wér kon jëmu boobu arab xamu ko ndax gannaaw jëmu alifu jëmu taksir bu si ñetti xaraf toppee bu ci digg bi alif lay doon te dafay ràgg comme asafiir waaye bii nekkul comme kon ba nga xasafee waaw ga da nga soxla war a xasafee yàgg kon moo tax mu ne fayul jiwu ka ñàkk xiyaasu loolu jamu boobu dana la weeduloo zaarikuloo ilaa xasfil musannaat nga xasaf laam ñaari tomb ya tax a taxtiya mooy yaaga xataa yaxsalu pour nga am mafail su boobaa xayaa zibnu foo nga xasafaal yaaga boo xasafee yaab ga yaaga nag nga am xazaabin waaw boo xasafee yaaga su ko defee nga defaat xazaabin xasafoon nga waaw ga fii nga xasafaat yaaga léegi looy def defal mu nekk mafail fa taqul nga wax xasaabin waaw te xasaabin boo ko defee foo nga indiwaale yaaga pour mu baax nekk xasaabiin moo tax foofu waaw ga rek nga fa mën a baax xasaf yaaga parce que boo xasafee waaw ga foo nga xasafaat yaaga fay lam yekkun bu nekkul nag loolu moom jeexal na foofu fay lam yekkun bu nekkul li ahadi zaidin ñeel benn si ñaari arafun doole li masiyatun nga neel ala axar ci beneen bu dee ñaari arafun doole li ñoom ñaar ñëpp ñoo yem boo ci dagg du la tax am tëggin bu arab nanguwut boo ci dagg du tax du tax xaraf way tekki maana dagg moom la wane fa ante yow bil xiyaar yaay tànn fi xas bi ayihi maa caasa bu ci ñoom ñaar siita neex la neex na la ka nuunay saranda comme nu ñu comme ñaari nuunu saranda li sarien umuri li sarien ñeel ku gaaw fi umuri ci mbiram wa shadid ak ku dëgër wa alanda ak alanda lil ku tat mooy ku dëgër ak seen ñaari alif xam nga saranda sulaasi mu jaral la ثلاثي مزيد لا يكون نون الالف علن دات من نون الالف لا من حسب نون غي حسب الف بي نياري بن لا دولا يقال دار امول بن حرف بو خامني دا فا مانا بو مي تك بو خامني تاخنا بو نكاس دو باخ فتقول داغي واخ دو لو حسب الف ك اك علاني دو لو حسب الف ك بحذف الالف بو لا نغا واخ سرادين لو حسب نون ك اك علا دين لو حسب بحذف النون حسب نون saraa dii la woon ak alaa dii waaye xam nga manquus buy nakira te tanwin dañuy xasaf mujj gëtt kasar la ko jiitu wa kazalika xabanta li azimil batt ñeel ku rëy biit taqul da nga fi si jamono xabaanitu ak xabaanitu lu xasaf alif ga wala xasaf nuun ga bi qalbi alif nga saasi alif gi yaa muy muy yaa nga def ko xabaati su ma yoo xam ne ñu ràggal ko inlaala jawaarin comme ra inlaala jawaarin comme comme ni ñu ràggalee jawaarin jawaar yi ay ay ay jéefar lay firi dañ ko ràggalee noonu ñu ràggalee xabaatin maanaam da ngaa dagg mujj gi kasar lu ko jiitu tanwin lenn kilta ziyaad da tey ni ndax ñaari ndooleel yëpp li xàq pour yéegal la bi safar jël alan daa ak saran daa dañoo bëgg mu tolloog safar jël rek kon ñoom ñaar ñoo yem ñoom ñaar ñoo ñëw li ilxaq fa takaafa ata ñu naw la wante moo tax bu la neex mën nga ci asaf su ko defee loolu mooy eh, lañ doon jàng ci dars bi in uridu al-islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh